papa papa papa xoolal président bi papa. loolu gay na lañ koy xoolal. baba. waaye sama papa. bu ma da ngay ñëw. teel ma kilifa gii la. daf nday mi ngi papa daf nday mi papa yi papa yaa ngi nii. papa yaa ngi maa ngi nii suma papa papa ngi nii yi nga xam sama mère bañ a ñu jëlaale biir gàlle bi kaay bi. feeñ naa feeñ naa feeñ naa feeñ naa. feeñ naa kii laay liggéeyal ah sama waa kër àndoon na kii kii laay liggéeyal wóor na yàlla kii laay liggéeyal kon baax na kii laay topp lu ma si góobe gar ko wax bu ñaaw bi ŋaññi bi mbajam mbajam kii lay topp gar ko kii lañuy topp góobe gar ko kii lañuy topp Eh, eh, eh, voilà. Voilà. woo. woo leen. nañu woo. woo leen. daf ñoo war a woo. daf ñoo war a woo. bu ñu Macky Sall la ñu woo. woo ngeen de. woo ngeen de kecc. woo Madiame Madiame. woo ngeen de. woo Madiame woo Madiame Madiame. Abdou Sall la ñu woo.